na ngeen jëf samay kaddu tey du mën a bëri ndax kàddu sant ak ngërëm dong maa ngi sant bu baax a baax Moussa Diama di sama xarit bu yàgg ëpp na ñaar fukki at di góorgóorlu te di liggéey ci Saalum Moussa du ma def lu may sant ko di ko gërëm di ko wax ne fii laa ko waxee tey tey maa ngi ci sa ginnaaw loo sumb nga tuddee ma ko nga bañ ma koo tuddee dinaa la jàppale ba mu réussir bu soobee yàlla sama damaa maa gërëm di sant sëñ Babacar Mbacke mu Kabaro heure bi na koo fekk mu tëdd mu ne man ak yow ba sa ba say activité jeex ma soog a tëdd di sama mag di sama nijaay di sama xarit di sama général maa koy sant di ko gërëm di ko sant di ko gërëm maa ngi sant Baye Matar Niass di seeti Maulana Cheikh al Islam maa ngi koy sant bu baax moom itamit tournée bi bu mu commencé ba ni ñuy ànd man maa ngi sant Kumba Kamara di soxna xalifa bu Medina Baay moom it dafa pare taxaw pour jàppale ma suba ba tey fu ma taxaw mi nuy taxaw sama wét mi ngi nii fu ma jëm mi ngi jëm sama wét mi ngi nii kon du ma man lu may sant ko di ko gërëm di ko dénkaat suñ bopp di ko wax ne ne li ko wax pour mu ànd ak man min ci kon ndigal la jot moo tax mu ñëw di ànd ak man te ndigalam pour mu ànd man wax na lépp wax na lépp maa ngi remercier le président Macky Sall bu baax a baax ndax li ma man tey

projet bi projet bu am la projet réalité la projet bi pour ndaw ñi la def formation def seen demande man fi ma jotee dinaa leen jàppale ba ngeen jot financement maa ngi sant Modou Xalaas moom itamit bu mu jàppee ba tey di bàyyi ànd bu muy ànd ànd bu sincère la maa ngi sant Cheikh Ba moom tamit sama grand la sama nijaay la depuis bu ma moom ba tey mi ngi ànd ak man maa ngi sant Daxa Sow sama nijaay bu yàgg sama nijaay la doon ànd ak sama nijaay maa ngi koy gërëm maa ngi sant Maguette Diop jigéen bu mën góor jigéen bu dëggu maa ngi sant di ko gërëm maa ngi sant Awa bu ma sumbee ba tey damay xulóog moom sax si yenn détails boo waxee boo waxee mu ne ma

les sapeurs pompiers maa ngi gërëm la Linguère de Ablaye Khouma maa ngi gërëm lee Linguère de Ablaye Khouma maa ngi gërëm ñëpp ñuy ànd ak man maa ngi gërëm ñoom Mass Diop Mohamed Diop maa ngi gërëm le coordinateur départemental de la COJER muy Bocar Diallo moom tamit depuis moom tourné commencé tourné ba sonn moo les 72 jours de Kaolack moom mi ngi ànd ak man te dara ñëwul ko lu mooy président Macky bu doon leneen na ko ñëw wala du président Macky te dina këram na kii day sóor maa ngi gën sant di ko gërëm Pape Sarr jeune bu dëggu boobu ba tey mi ngi ànd man maa ngi gën di la jeunesse de Medina Baye la jeunesse de Ndoumaneew la jeunesse de Kaolack maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan maa ngi sant di gërëm waa TFM télé boo xam ne addina yëpp koy seetaan. man moom mooy sama numéro un mondial du ma ne Sénégal sama numéro un mondial man moom laay seetaan moom laay gëm te lu ne ñu ngi koy taxaw TFM mooy taxaw boo xam ne ne télé bu dëggu la les maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi sant waa Alfayda maa ngi sant tous les journalistes maa ngi sant 2STV Saloum TV Thiey Dakar

ñëpp dañoo tëddoo seen kër ren xeex nañ xeex nañ ba ndax mbax mi wàññeeku xeexaan nañ ba mbax mi wàññeeku kon lu may def mu may sant leen gërëm leen di sant waa Ndakaaru Njaay ñu jógee Dakar déplacé wu ba fii di Mariam Tabba bii Diallo Maam Diarra di sant ñëpp alu si di leen sant di leen gërëm di jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah